édition spéciale bi. oui allo naka ka def. ngi sant mhm. maa ngi lay ziar maa ngi nii sax di live mais yow moom comme sama sœur nga dina def vite fait rek benn réaction de temps may démarrer live bi. dëgg la dugg si waaw. Mhm. ñëw seet fi seen candidat wala ngeen yaakaaroon ñu dugal ko mujj ñu ko dugal Ousmane Sonko euh, ci liste bi ñu fësal sànq muy liste bu ñaar fukki candidat euh, boo xam ni euh, Karim Wade la seet bi ci ñaar benn ya ñu jàppoon ci liste provisoire bi lan mooy seen réaction ci boobale décision. waa Fatou dara bettuñu ci parce que ñun ñëpp foog naa ni commencé woon nañu quand xam lan nga li nga xam ni moom la. nguur gi bëgg ci suñu candidat le président Ousmane Sonko waaye nag am nañu lu ñu metti loolu itam il faut ñu wax ko am nañu lu ñu metti parce que candidature bi ñu choisir mu candidature président Ousmane Sonko du candidature yaa ma neex comme ni ma koy waxee toujours euh, candidature la boo xam ni dafa ànd ak jëmm ji nga xam ni moom moo ko incarné muy ay valeur yu Sénégal soxla muy rupture bu Sénégal soxla muy taxawaay itam bu nga xam ne ci génération am sunu candidat daf ko taxaw euh, am ci yéene am ci compétence am ci parcours am ci am ci am ci expérience ba pare itam yàlla sunu borom may ko dayoo boobu donc bu fekkonte ne euh, sunu candidat le président sun ko bokkul parce que yoon moo dal ci kawam du ñu metti li tax mu metti ñu mooy dafa am benn clan boo xam ne depuis le début depuis 2021 à la tête de ce clan président Macky Sall jiite ko moom ak gouvernement am ak partem APR ñu déside ni président Ousmane Sonko du bokk ci kan ci élection présidentielle yi ay xale yu bare faatu fii ay xale yu bare ñu tëj leen fii coow lu bare am fi senegal moom ñu xañ ko ci liberté séquestré ko barricadé ko nangu alalam ak yeneen ak yeneen ak yeneen du ci am loolu yépp nag liñ ci jublu woon mooy lii tey mooy moom du bokk ci élection yi ñu waxe ko promettre ñu ko doxe ko jël administration boole ko ci complice bi tey ñu arrivé ci loolu avec bien sûr l'apothéose du conseil constitutionnel loolu nag ku mu mettiwul ci réew moo xamante ne da nga ni réewu républicain la wala réewu démocratique kon yow xawma lu lay metti metti nañu nag Cheikh ci euh, am Ngom metti nañu lool sax metti nañu parce que metti nañu parce que tey euh, comme li ñuy wax doole dafa mën dëgg c'est pas parce que daf ñu metti nag dañoo dañoo dañoo dañoo baisser les bras déedéet mais am nañu droit taxaw ci métit bi parce que nag suba suba la mais tey tey la tey jii tey la tey dañuy taxaw ci sunu candidature bi nga xamante ne tappale ak ragal bëri ak utiliser administration utiliser justice moom moo tax tey candidature président Ousmane ko ñu xañ ko askanu Sénégal bu fekkente ne suba sax moom mi nga xam ni moom la ñu tànn jox ko sunu kàddu lum ñu wax di dinañ ko def mais loolu suba la mais tey dañuy taxaw ci li ñuy dund dafa metti parce que li ñuy dund dëkk bi ñu koy dundee dafa dañ na dëkk bi dëkku loi la dëkku dëkku dëkku dëkku dëkku législation dëkk boo xamante ne yoon moo fi war a daw yoon boobu tey moom moo jeng ba tëdd ci suuf parce que conseil constitutionnel su jëlee jurisprudence dëgg ci tànkam terewul mu invalider candidature le président Ousmane Sonko wëlbati ko di wax nit ñi waxi li nga xamante ne ay waxu euh, diffamation parce que li mu wax ci considérant yi mooy président Ousmane Sonko dañ ko condamné définitivement ci affaire Mame Mbaye Niang bi donc loolu moo tax administration am na sañ-sañu def li mu def loolu ci réew mi ñuy wax Sénégal ñaata nit ñoo fi diffamé balaa fi ñu toll nii diffamation tax ñu ne nit kooku doo concourir au destin de ton pays waxuñu la dangaa sàcc waxuñu la dangaa luubal waxuñu la dangaa détourné waxuñu la lenn lu ñaaw lu dul dañu ne la danga def diffamation te diffamation boobu ci lan nga ko defee ci demander les deniers publique du Sénégal Prodac quarante cinq milliards diffamé woo nit ki de ci vie privée di diffamé woo ko ci ay mbiru boppam da nga ko laaj ci bu fekkante ne am na sax ndax diffamation amul ci loolu ndax rapport bi dañu ko wax mu leer te rapport boobu moo taxoon Mame ñaar Niang démissionné Amadou Ba mi tey di nekk seen candidat moom moo ko ci tuddoon mais ci dossier boo xamante ne euh, le président Ousmane Sonko dafa laaj ana fan la ñu dugal xaalisu askan wi ana lan moo nekk ci rapport boobu ñu ne ko doo bokk ci élection présidentielle yu Sénégal waaye nag suba beneen bisti na ñëw tey nga may ma rek ma taxaw ci tey ndax te ah. jàpp naa ni tey moom moo moo taxaw mais mais dafa leen nañ leen waaw ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax parce que euh, dama jàpp ni ci candidature Bassirou Diomaye euh, c'était le choix du président Ousmane Sonko Euh, man depuis le début nee naa leen man gë ciituma ci candidature Bassirou Diomaye euh, nga baal ma nag dinaa wax ci candidature Diomaye beneen jour mais tey sama candidature candidat moom la ñu bañ mooy le candidat le président Ousmane Sonko man moo nekkoon sama candidat nekk suñu candidat suba bu fekkente ne dañuy def Bassirou Diomaye candidat loolu ci bëgg-bëggu le président Ousmane Sonko lay doon man du ma ànd ak nit du ma la jiitalee duma la faxasal lu mu wax loolu lay wax Euh, naam sax euh, am naa ci mbégte bu baax que Bassirou euh, porteur du projet PASTEF reste en ligne en liste te xam naa ni comme li may wax rek à couli kulli al 2024 élection yii Ousmane Sonko dina ko gagné ci bunt bu mu munti jaar dina ko gagné parce que sénégalais ñoom ñoo ko ko yéene. d'accord nangul naa merci beaucoup merci merci. voilà jërëjëf maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di nuyu di jéggalu euh, commencé naa live bi faatu Thiam mënuma ko woon bañ a jël parce que sama sœur la euh, mais il fallait que ñu def live bi euh, waxtaan ci suñu biir parce que lii am situation la boo xam ni il faut kenn su ñun ku nekk jàngat ko maa ngi nag rafetlu ah, d'y magnifier hein, la capacité euh, des Sénégalais de prendre de la hauteur Sénégalais yi euh, nekk nañu nit ñoo xam ni euh, dañoo xeex sonn ba nga xamante ne euh, tey jàpp nañu ni lu am rek am nañu possibilité de transcender ça et de rester debout loolu capacité la mais aussi dama bëgg itam ñu taxaw comme li ma ko wax léegi ci audio bi ci sunu candidature bi nga xam ni dañu ko euh, invalider injustement dañu ko invalider injustement oui Bah Ahmedine nous continuerons le combat mais c'est pas parce que nous continuerons le combat que nous devons accepter normal que ce qui vient de se passer soit une normalité ce n'est pas une normalité ce n'est pas une normalité dañu war a am une rage Nous devons être en colère. Nous devons être dégoûtés. Nous devons être révoltés. Parce que nous avons besoin de cette colère et de cette révolte pour pouvoir continuer le combat. Waouh Waouh, Sokhna Mariama. Il nous faut cette colère. Il faut que nous dund ko. Il faut ñu génne ko bu ñu ci am kersa bu ñu ci am kersa ce n'est pas parce que euh, Diomaye notre frère Diomaye qui de toute façon battra à plate couture Amadou Ba que dañuy accepter tey dans nos discours et dans nos débats comme si dara amul ok ah, dara am na dara am na dinañ dem jusqu'au bout parce que on n'a pas le choix on n'a pas le choix parce que bu ñu demul jusqu'au bout ça veut dire que suñu candidat du génn ci kaso bi parce que ñii nekk président Macky Sall mii li mu woon tey ak nii mu jëlee administration jël ko justice jël ko conseil constitutionnel tey plié ba lépp am nii nu mu ko bëggee woon mu demee noonu ah bu fekkente ne amuñu regain de colère bi war a mën a tax ñu taxaw protéger ces élections la ah je suis du yomb donc n'ayons pas de complexe de dire qu'on a mal N'ayons pas de complexe de dire qu'on est déçu, de dire qu'on est en colère. L'essentiel, mooy lan la ñuy def ci colère boobu est-ce que cette colère va nous faire baisser les bras wala est-ce que cette colère daf ñuy taxawloo waaw loolu mooy wax ci mais tey bu kenn jàpp ne su ma amee lu ma metti euh, du yoon ndaxte nag naqar ak bànneex ñoom ñaar ñoo ànd mais contenté ak xàqataay mënta ànd ak jooy ak i xàqataay dangay jooy ba pare nga ree wala nga ree ba pare jooy mais munoo def ñaari munoo def ñaari donc pour waxtaan rek ci suñu diggante parce que tey euh, dafa am situation bu ñu tombé le président euh, Macky Sall depuis deux mille vingt et comme ni ma ko waxee léegi. defoon une promesse à beaucoup de gens à à son groupe mais aussi à beaucoup de lobbies mais aussi à beaucoup de forces étrangères ñu nga xam ni kenn si ñoom ku nekk tu avais peur de la candidature du président Ousmane Sonko il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Le jour on n'acceptera plus de dénoncer, c'est-à-dire qu'on va cautionner les injustices. waaw man dama bañ injustice il faut dénoncer il faut s'arrêter et dénoncer il faut s'arrêter et dénoncer il faut marquer le point il faut marquer le point te boo ji boo jiitalee nit doo ko fàggaagal boo jiitalee nit doo ko fàggagal euh, man am naa possibilité peut-être am liberté pour wax parce que bokkuma Pastef waxuma nag ci turu Pastef waxuma ci turu président Ousmane Sonko ci turu allié lay waxee ci turu euh, xarit lay waxee ci turu sœur lay waxee ci turu ku tànn def ko candidat lay waxee bii moom lay may le président Ousmane Sonko bii moom lay may le président Ousmane Sonko fekk waxuma lii ak lii awma candidat man tey benn candidat laa am muy le candidat Ousmane Sonko candidat bu may mënti porter tamit ci élection yii candidat Ousmane Sonko lay doon parce que ki Ousmane Sonko di fal pour mu génnee ko fee mu nekk ki Ousmane ko di boot pour mu génnee ko foofu mu nekk kooku kese moom laa àndal xaw ma ndax yéen a ngi comprendre fi may waxee xaw ma ndax yéen a ngi comprendre fi may waxee waaw Ousmane Sonko moo tànn Diomaye Bassirou Diomaye Faye le président Bassirou Diomaye fay mën nañ ko sax commencé wax parce que il est candidat et incha allah il peut être le prochain président pour libérer le Sénégal libérer le président Ousmane Sonko mais déggaguma Ousmane Sonko mu wax ak man kon da ngeen di may may rek li ma wax fii moom lay waxaat loolu beneen jour lay doon beneen jour lay doon tey dama bëgg ñu taxaw ci ci sunu euh, injustice taxaw ci arbitraire taxaw ci li nga xam ni musuñu ko gis ci àdduna waaw taxaw ci li nga xam ni il faut ñu taxaw ci loolu il faut ñu taxaw ci loolu réew moo xamante ne un un président sortant fait une promesse te promesse bi nag ñi mu ko def dafa bëre de lu tax may wax loolu il faut ngeen jël seen responsabilité il faut ñu ñëpp ñu jël suñu responsabilité parce que bu ñu jàppee ni rek non non non c'est bon def nañu lii ku mën na éliminer président Ousmane Sonko rangoon tuuruwul yuuxu jibul dara amul te amul benn réaction bu dul jàpp ne lii tout va bien leneen la ca kanam capable nga lu ko raw capable nga lu ko raw ne nous séparons pas de notre colère c'est trop tôt ne nous séparons pas de notre colère c'est trop tôt dañu soxla sunu colère sunu mer sunu naqar dañ ko soxla bu leen ko bàyyi d'accord naa d'accord naa bu ñu baisser les bras d'accord naa nañu taxaw d'accord naa nañu avancé bu ñu affaibliru bu ñu tëdd ci suuf bu ñu leen may mukk li ñu bëgg mooy nous avoir par terre d'accord naa mais dama ni sunu mer sunu naqar sunu frustration nañu ko téye boot ko téye ko ak suñu ñaari loxo parce que dañu ko soxla fi ñu jëm waaw dañu ko soxla fi ñu jëm parce que suñu mer suñu naqar suñu frustration moom la mën a jël pour transcender suñu bopp pour mën a sécuriser ces élections là parce que ñii li ñu def mu jaral leen ñu sukkal administration sukkal justice sukkal tey jii tey def loo conseil constitutionnel lu nga xam ne da ko bañoon dem mu def ko tey ñii bu ñuy utiliser wul suñu mer pour jàkkaarloog ñoom ci élection yi sécuriser suñu vote mu jaral ñu ñu nekk benn nit xeex jëli suñu ay carte électeur sécuriser ko yuuxu dina jib fu ko fu ko fu ko foogeewul parce que nag am majorité kese taxut a tëdd nelaw on a besoin de notre colère waaw waaw mën na lu ne on a besoin de notre colère waaw avançons restons debout parce que sunu candidat lii yëpp gisoon na ko prépare woon na ay plan wam ay stratégie am c'est un grand homme un grand monsieur qui a compris que ñi muy xeexal fi mu jëm ak ñoom du fii mais nag ñun bu leen fàtte sunu indignation bu leen fàtte sunu naqar bu leen fàtte suñu patriotisme bu leen fàtte suñu loolu yëpp moo nekkoon suñu doole moo tax bu ba léegi ñuy xeex jàkkaarloog moom waaw kon nag bu ñu bàyyi loolu bu euphorie bi neex neex neex ba ñu fàtte loolu bu euphorie bi neex neex neex ba ñu fàtte ba ñu ne ok déedéet utilisons notre indignation Parce que nous avons besoin de cette colère pour faire partir ces gens-là qui pensent être arrivés au bout. Inch'Allah, Bouba Kaïta, Inch'Allah. Inch'Allah, maa ngi rafetlu bu baax a baax capacité de dépassement bu patriote yi bu sénégalais yi les gens nous appellent de partout on est obligé ñu couper suñu téléphone les gens nous appellent de partout pour nous dire lii téyewuñu parce que ñëpp comprendre nañu te élection yi c'est aussi les gagnés c'est aussi libérer le président Ousmane Sonko et les détenus politiques libérer le Sénégal buñ ko gañewulee non ñii lii ñu def nii non kon ñoom pare nañu leneen lu ëpp lii donc on va aller jusqu'au bu et on va gagner parce que ils savent qu'on va gagner c'est parce que dañu xam ne dañuy gagner moo tax ñu toog sur tous ces principes le droit et tout ça mais nag euh, ñu ngi signaler live bi beaucoup de gens sont en train de signaler live hmm. ñu ngi koy signaler mais nag comme li ma doon wax léegi nañu des benn say lu muy neex neex bu leen fàtte ñi nit ki kenn du ko jiital ba pare di ko fàggaagal kenn du ko jiital ba pare di ko fàggaagal nañu dégloo waaw nañu dégloo nañu dégloo nañu jëli carte yi mais nañu takk sunu ay ndigg nañu takk sunu ay ndigg waaw parce que on a besoin de ça on a besoin de ça incha allah Alimata Sow on gagnera obligé qu'on gagnera c'est parce que ils savent qu'on gagnera mais là nag c'est le moment de nous diviser parce que ceux qui ont compris et ont la capacité de dépasser et d'aller sur l'autre étape faut pas que ñu xas ceux qui ont besoin aujourd'hui de pleurer et d'être en colère acceptons-nous nañu nanguwante nangulante parce que nit ñi bokkuñu temps d'adaptation nit ñi bokkuñu temps d'adaptation ñii dañuy adapté wu tout de suite ñeneen ñi dañu soxla temps pour adapté wu bu ñu nangu divisé wu bu ñu ko accepté parce que foofu lañuy jaare pour scinder suñu ay rang parce que on a besoin d'aller ensemble pour arriver ci rang yooyu parce que le président Ousmane ko ñun ñi ñëpp daf ñu boole woon waa PASTEF ex PASTEF sympathisant waa force citoyenne waa LACOS waa Sonko président ak ñeneen ak ñeneen daf ñu boole woon moom moo ñu boole léegi nag ñi nekk nga xamante ne dañu jàpp bu dul Ousmane tey dañuy jooy nañ leen jàppale ñu fonk seen rangooñ ñu waxtaan ak ñoom ñu ndax leen mais ñu xëcc leen yóbbu parce que dañ leen soxla ñi nga xamante ne dañu jàpp ne jomaay mooy Sonko ah kay nañ leen accepté nañ leen comprendre ñi nga xamante ne dañu jàpp ne dañu war a déglu le président Ousmane ko ba suba lu mu wax loolu la ñu wax ñooñu tamit nañ leen accepter nañ leen comprendre parce que nañu xam ni benn personne mooy am victoire le 25 février et il s'appellera le président Ousmane Sonko ci yoon bu ko waaye nit bëgg na jaaree kenn mënu ci loolu dara bu sénégalais yi nam nammee am seen fulla ak seen fayda kay taxaw taxawaay bañ taxawoon 2012 bi ñu paree ci régime Abdoulaye Wade buñ ko taxawee le 26 ñu génnee ji suñu ay prisonniers politiques waaw ñu génnee ji seen ay projet politique ñu génnee ji seen ay prisonniers politique am nañ ci possibilité waaye c'est vrai yaay Aminata ñu ngi signaler live bi beaucoup beaucoup même euh, je pense que li may wax xëy na dafa am ñu mu déranger ah mais. Euh, xam naa waa boor bee la rek d'accord waa boor bee rek donc euh, ce que je voulais c'est surtout éviter li ma bëggee a éviter mooy ñu jàpp ni dañu am ñaari camp ci sunu biir fii même ñii di jubilé jubilé wuñu parce que dañu kontaan déedéet loolu aussi je le dis à ceux qui pensent que dafa am deux groupes yu fi am deux groupes amu fi on a le droit d'être en colère on a le droit de pleurer on a le droit d'être déçu mais on n'a pas le droit d'attaquer son frère on n'a pas le droit de dire yow pourquoi tu passes à autre chose parce que fii kenn passé wu fi à autre chose ñëpp a am lu leen metti dafa am ñu ko mën a wone ak ñu ko mënul wone dafa am ñu ko mën a wone ak ñu ko mënul wone acceptons-nous et comprenons-nous supportons-nous donnons-nous la main et évitons situation tey bii tey di am division bu mu mën a am suñu diggante fii lay guddi gi di jeex parce que kii day tëb publier kii ne ko man gisee ko noonu mu am waxtaan ci suñu biir ay werante te loolu c'est pas le moment parce que loolu la ci pouvoir bi bëgg parce que jàpp nañu ni bu Ousmane ko demul consensus mënul am ci ay candidat am léegi nag na ngeen ma baar rek waxaluma Pastef ndax aw ma prérogative boobu mais dama ni euh, bu ñu may euh, nguur gi li ñu bëgg ndax li ñu bëgg mooy dañoo jàpp ni bu sunu président Ousmane ko demul du ñu mën a am consensus loolu xam nga lan moo lan mooy tax du am. xam nga lan mooy tax loolu ñu éviter ko mooy ñu déglu ko moom ñu déglu ko moom ñu déglu ko moom d'accord ñu déglu ko moom moom képp moom kese moom lu mu wax loolu la ku mu wax kooku la loolu moom mooy doole bi loolu moom mooy doole bi bu ñu werante ci suñu biir lu tax nga bind lii lu tax nga posté lii lu tax lii bu mu am ñu continuer focus ci moom am na décision bu génn comme d'habitude dinañ ko apprécier mais dama xam euphorie bi ci nekk gis ko depuis sànq muy daw nga xam ne lii ku ko bàyyi mu dem dina mën a balaa guddi mu tas parce que nit ñaa ngi commencé kon ku nekk ni ngi koy apprécier mais benn appréciation rek moom moo am mooy on est obligé de gagner ces élections Et on va les gagner, Inch'Allah. On va les gagner avec celui qui l'aura choisi, avec la détermination du peuple sénégalais. Sous nous délais, sous nos colères. Ok, donnons-nous la main, unissons-nous. bu ñu doxantee suñu loxo bañ a nangu dara divertir ñu bañ nangu dara tàqale ñu même li ñu metti tey muy sunu naqar nañ ko jël def ko suñu force ñu jël suñu colère acceptons la colère mais jël nañ colère boobu nag def ko une force pour combattre parce que ils n'ont pas dit leur dernier mot ils n'ont pas dit leur dernier mot le peuple sénégalais doit apprécier le peuple veut aller aux élections si le peuple décide d'aller aux élections il faut que le peuple se donne les moyens de sauver et de protéger ces élections loolu itam moom mooy dëgg loolu itam moom mooy dëkk ndax kila defal lii kila defal lii du bàyyi leneen donc man en tant que koo xam ne maak yéen ñoo yem xëy na am na ñoo xam ne yemuma ak ñoom parce que dafa am xëy na proximité yu ñu am ak kii ak kii mais man mën naa wax ne benn candidat laa am Binta Camara muy Ousmane Sonko nga am ko ñun ñii ñëpp ñu bokk ko am léegi nag nañu ko déglu nañu ko déglu nañu ko déglu post yi ñu war a def tey ci guddi ak suba xam nga mooy lan du poste di ko comparer ak kenn parce que bu ñu ko doon comparer ak kenn duñ ko doon tànn mais poste yi ñu war a def mooy poste yu ko naan yow yaay décider. poste bi ko naan yow yaay décider li ngeen di bind mooy foo joxoñ foofu la li nga bëgg loolu la ñuy def ki nga ki nga tànn kooku la loolu moom mooy mooy mbir mi fifindooy Ndoye la cause de l'élimination de Ousmane Sonko selon le conseil constitutionnel ci seen considérant yi li ñu wax mooy dañu ne li Ousmane Sonko di reproché administration bi à savoir défaut d'attestation administration bi joxu ko ko ñu ne administration bi au-delà de euh, li tax joxuñu ko ko par rapport ak jugement bi nga xam ni moom moo ko opposé ak Mame Mbaye jugement boobu nekk ne jugement bu définitif donc euh, Ousmane Sonko dafa am dafa écopé de la de la peine de six mois avec sursis donc loolu moo tax moom définitivement mënul bokk ci élection dans les cinq prochaines années d'accord d'accord xam naa nag dinañ ci ñëw dinañ ci ñëwaat dinañ ci ñëwaat dinañ ci gën a ñëwaat gën ko leeral d'accord donc loolu moom moom lañu bind ci seen seen yëfu seen yëfu yu yu yu oyof yooyu ah parce que foog naa ni euh, jurisprudence bi nga def da nga ni bu manqué document te administration bi nekk fautif muy euh, la jurisprudence de 98 et d' autres jurisprudence mënuñu ko ko incombé léegi nag ñu justifier ni effectivement dafa dafa justifier que ni am dossier matul mais am na condamnation bu définitif am na condamnation bu définitif donc condamnation bu définitif boobu donc ça veut dire que juste euh, euh, administration am na sañ-sañu tere ko ko te ñëpp ñun ñëpp ñu xam ne bi muy am condamnation définitive bi fekkoon na processus bi jàll na te condamnation bi ba tey définitif agul parce que condamnation boobu munu ko tax ñu bañ ko jox fiche parce que condamnation boobu beneen procédure la bu ko war a génneewaat ci liste yi li taxoon ñu génnee ko ci liste yi loolu caduc na li taxoon ñu génnee ko ci liste yi max bi la te contumax boobu juge coon dindi na ko ba mu set wecc donc même su fekkente ne dañ ko jugé ci dossier Mame Mbaye Niang il faudrait que procédure boobu noonu mën a delluwaat parce que delloon nañ ko ci fiche il faut que ñu xaar ba révision amaat parce que révision amatul kon ban moment lañ ko war a génnewaat ci liste bi mais loolu dinañ ci waxaat juriste yi dinañ ci wax man mi am na lu ma ci xam parce que je suis désolé condamnation Mame Mbaye Mame Mbaye bi muy ñëw fekk na Ousmane ko gagné ay procédure am ba pare ci Ziguinchor pare grande instance ñu war ko delloo ci liste jox ko ay fiche kon bu ñu wëlbati ko ne procédure boobu moom moo tax tey ba ñu génnee ko ba ba administration am dëgg ça veut dire que décision de justice moom mën na rétroactif on accepte que décision de justice mën na rétroactif non il faut qu'on soit en colère on a le droit d'être en colère parce que dëkk bi du réew d'accord am nañu capacité de gagner am nañu capacité d'aller de l'avant te dinañu ko def parce que suñu volonté d'en finir avec ce régime et d'élire suñu choix moo ëpp suñu colère mais quand même il faut qu'on s'arrête su cette colère là il faut ñu wax li am conseil constitutionnel nga xamante ne moom mooy charte bi ëpp tey mu war a moom ñëw atte muy wax ci ay considérant di justifier le refus de l'administration di ko dëggal di ko jox doole di ko teg ci décision bu nga xamante ne bu muy am fekk na fekk na procédure yi jeex fekk na ñi ñëpp dem jëli ay fiche ba déposé ko li mu waroon def mooy même su fekkente ne président Ousmane Sonko décision bi daf koy génnee ci liste bi mais loolu beneen procédure la beneen procédure la parce que ñoom dañ ko war a dellu génneewaat ko may ko encore moom mu delluwaat encore Ziguinchor riposté waat ni mu defoon ci ju ci juge Faye jógee Ziguinchor ñëwaat cour suprême ñoom bu ñu bañee ñu ñëwaat cour suprême loolu ay procédures yu procédure la mais nga taxañ loolu yépp nga taxañ loolu yépp ne c'est fini quoi jeex na kenn du ci wax kenn du ci wax d'accord il faut aller battre campagne mais avant d'aller battre campagne il faut être au combat il faut être au combat Parce que ce, cette campagne la ce n'est pas une campagne présidentielle. C'est le prolongement de notre combat contre cette dictature bii nii il faut loolu nit ñi xam ko il faut loolu nit ñi xam ko combat bi ñu jëm nii du combat rek dem élection formalité gagnée non on a en face de nous ñoo xamante ne mais ils ont décidé de confisquer ce pouvoir ils se sont dit kii moom moo ñu mën a tere nañu ko écarter après ñu ñëw ci yeneen étape moo tax ma ne leen fii resserrons les rangs resserrons les rangs bu kenn nax sa bopp waaw bien sûr Amina loolu buñ ko mënoon loolu lañuy def parce que loolu mooy yoon bi mais comme nit ñi mënuñu loolu dañuy taxaw ànd dem ci élection mais dem ci élection boobu dafa ànd ak déglu ki ñuy ki ki ñu ki ki ki ki ki ki ñuy jiital wëlbatiku itam xoolaat suñu taxawaay jusqu'à présent am nañu kon ne naan allez retirer vos cartes foog ngeen ni ça c'est normal dans un pays jeune avec des gens qui veulent changer seen dëkk il faut nit ñi ñu leen di ñaax naa leen dem leen ngeen jëli seen carte te ñu toll ci réew moo xam ne carte kese moom moo fi mën a fal nit on peut faire le jeu sensibiliser mun nañu sensibiliser d'accord mais quand même am na foo xamante ne kenn ku nekk moom moo ko teg boppam maintenant je ne parle pas pour décourager les gens il faut mu leer il faut mu leer parce que li ma bëgg a xamal nit ñi mooy fii ñu jëm mënut a ñàkk mënut a ñàkk de avancer mënul ñàkk Parce que dafa am foo xam ne quand tu es là-bas à ce niveau-là tu ne peux plus t'arrêter tu es obligé que d'avancer tu es obligé que d'avancer parce que t'arrêter c'est trahir donc tu es obligé que d'avancer léegi nag boo bëggee avancer nag da ngay ut da ngay ut da ngay ngemboo doole bu lay avancer loo doole boobu nag mooy sunu colère bi mooy sunu naqar mooy sunu indignation mooy sunu frustration d'accord sunu frustration donc nañ ko jël nañ ko jël bu ko kenn jéggi jël leen ko nañ jël frustration boobu ñu avancé ak moom nañ jël frustration bi ñu avancé ak moom dinañ ci waxaat waaye il signale il signale le live dinañ ci waxaat d'accord dinañ ci waxaat dinañ ci waxtaanaat dinañ ci waxtaanaat ci taxawaay yi incha allah dinañ ci waxtaanaat mais daal ci li ma bëgg a ñaan rek merci beaucoup Cheikh Babacar Justin Faye écoutons notre candidat écoutons-le Madjiguène Diop met on va y mettre toutes nos tripes toutes nos tripes parce que ces gens ont tout bafoué la justice l'état de droit l'administration les jurisprudences du Conseil constitutionnel ils ont tout bafoué tout bafoué pour arriver à leur fin. Heureusement qu'ils sont peut-être arrivés à éliminer le président Ousmane Sonko de ces listes-là, mais ils n'ont pas pu éliminer le projet. Ils ne peuvent pas éliminer le projet. Le projet de PASTEF, le projet du président Ousmane Sonko, le projet du peuple sénégalais. Ça, mënuñu ko kon nañu mobiliser wu autour de ce projet et puis gën ko déglu d'accord gën ko déglu déglu ko dama mere sax ñi may wax naan jëli leen carte yi parce que bu buñ toogee ba tey ak situation bi nu mu amee nii am nit ñuy xaar ñu ne leen dem leen ngeen jëli carte yi loolu loolu c'est pas responsable ah c'est pas responsable j'aurais bien aimé jox nit ñi parole n'hésitez pas à extérioriser ce que vous avez ce que vous ressentez d'accord merci Moustapha Cissé merci incha allah buñ ko defee rek duñu juum duñu juum ndax moom <laughs> dina def le bon choix te ñun ñëpp xam nañ ko mooy fi xol yi jëm ah fi xol yi jëm di rafetlu nag di am contenté bu baax a baax ci validation ba euh, Bassirou Diomaye bi parce que dara dara dara waru woon tax sax ñu attaqué ko c'était un faux débat c'était un faux débat c'était un faux débat euh, mais ñuy xaar ci kanam ñu ngi xaar ci kanam dinañ ci gën a wax dinañ ci yëy yàbbi incha allah lenn rek mooy fexe bañ a séparé wu waaye Papis Diouf on partagé à la sentiment de dégoût et d'espoir c'est vrai waaye Nadine le fichier la carte électorale le processus électoral Qui c'est qui va contrôler tout ça La DGE La Sénat La DGE, la Sénat ki c'est qui va programmer ces élections Le Conseil constitutionnel <laughs> C'est eux qui vont faire ça. Lépp, ça dépend que de nous. Ça dépend que de nous. mbokk yi nañ waxante dëgg buñ naxante suñu bopp lépp ça dépend de nous lépp ça dépend de nous le président Ousmane Sonko lu mu def waroon def yëpp def na ko mu waroon def yëpp def na ko restons debout restons focus mais il faut ngeen xam ni euh, ñi ñu am en face de nous c'est la DG qui a violé les non-droits la Sénat le conseil constitutionnel mais ñoom ñëpp kenn rek moo leen ëpp doole muy le peuple sénégalais le peuple souverain le peuple souverain donc il faut que ce peuple là comprenne et se donne les les les Idi <laughs> ça va comment vas-tu va, Alhamdulillah. Ah oui, oui, merci à toi. Hein? yaa ngi ci live bi de tu veux que je te mette directement vas-y bon kon ngeen déglu le patriote Idy Dionewar ah qui va participer directement ci live bi allez Idy on on t'écoute. voilà. sànq rek euh, di la féli di félicité patriote yëpp. Mm-hmm. mais yow di la di la di beral loxo vraiment yaay ngi dans tous les combats euh, te mënoon nga ni bokkuloo Pastef. Mm-hmm. Euh, xaar man ma démarqué wu xeexal sama bopp mais depuis président Ousmane Sonko ba mu amee commencé am problème ba léegi mosoo dellu ginnaaw. Mm-hmm. da nga bàyyi sa activité bàyyi sa lépp ànd ak ñun di xeex li nga xama mooy pour sa libération pour ñu respecter ay droit am may woo patriote comme ni ma ko waxee sànq suma live bi combat bi mu ngi doog a commencé. comme ni ko may mën a bu sa waxee sànq. Mm-hmm. léegi fu nekk nii euh, li nga xamante ne mooy xew suba si ñun peuple bi suñu détermination euh, lay lay lay lay lay lay lay si lay aaju. Mm-hmm. waaw ñun su nekkee dañu taxaw euh, seetaan leen te bu baax mun nañ liñ bëgg def ñu force ba. mais suñu amee engagement ak détermination bi nga xamante ne moom la patriote yi mës a am. Mm-hmm. ñii lu ñu def a def ñu ko def. Mm-hmm. parce que ñoom ñooy minorité si li nga xamante ne mooy euh, ci dëkk bi te suñ demee ci campagne bi lépp dina leer. Mm-hmm. dañ leen doon tere ay manifestation parce que lan bëgguñu woon ngeen génn pour ñu wan àdduna ne ñu ñooy majorité ci réew mi. fii ak quelques semaines dinañ wan àdduna yëpp ni ñoom ñi nga xamante ne mooy waa benn bokk yaakaar tekkuñ dara ci réew man xam naa ni tiit nañ fu mu nekk nii. parce que seen problème yëpp lan la mooy naka la ñuy def ba campagne ci yi loolu man xam naa ni seen problème la fu mu nekk nii. dëgg la du ñu dóor kenn du ñu saaga kenn du ñu xaañ kenn mais dinañ wane suñu doole. incha allah dinañ leen wan ni réew mi fu nekk nii patriote yi ah ñun ñoo ëpp doole su ma nee patriote dama naan coalition sax laay wax coalition Sonko 2024 bi laay wax. Mhm. ñun ñoo ëpp doole fi nga xamante ne mooy jiw bi leen ko won waaw élection yi incha allah euh, campagne bi lañ koy commencé mais ci élection ya ci la ñuy gën a xam loolu ndax suñu paree voté benn Sénégalais ñu bi këram. dinañ voté nga xamante ne mooy suñu vote. Mhm. li ñu nam duñ ko mus a def parce que peuple bi luñ leen ko seetaan mooy woo patriote yëpp nag ñoom ñëpp nañ woo ku ci nekk na nga dugub dugg euh, tey kër dëkkandoo na ngeen dem ci marché yi na ngeen dem ci stade a football yi na ngeen dem fépp boo xamante ne euh, électeur mun na fa nekk ngeen na leen nañ dem jëli seen carte parce que nag suñ ne élection ne vote. te mhm. ay carte mooy vote kon mhm. doole na ba xeex nekkatul xeexu jiw wala jiw. mais patriote yëpp la te yomb na soo nekkee sa koñ gis nga te dëkkandoo ak gis nga ne kii jotagul kàttam wala gis nga soo mënee sans publique lay benn mooy ñi nga xamante ñu ngi toog naan euh, parce baax na wala baaxul hmm. ñooñu ñëpp dañ leen dem fekk ji wan leen li nga xamante ne mooy projet bi nga xamante ne moom la Sonko 2024 am hmm. ñu tegal leen ko jéem leen convaincre ñu ñëw fekk suñu ci li nga xamante ne mooy combat bi nii hmm. waaw loolu laa amoon euh, lu ma lay lu may wax euh, di sant ñëpp di sant ñëpp

muy ñoom Cheikh Anne ñoom Issa Diène ñoom ñëpp daal ku lim da ngay juum Babacar Sadikh ñëpp ñëpp ñëpp ñoom Ousmane Diagne ñoom Maya Alimata Sow tout le monde Arouna Niang que je vois tout de suite patriote yëpp maa ngi leen di jaajëfal di leen féliciter di leen encourager di leen wax ne encore encore un fait encore focus encore focus la seule chose bu tax ma def live bi mooy je vois que y beaucoup de gens qui ont mal il y a d'autres qui ont la capacité ñu dépasser mal boobu il y a pas deux deux deux formes de patriotes il y pas ki gën a bëgg Ousmane wala ki ko gënul bëgg il y a juste nit ku nekk ak nu muy nu muy encaisser ak nu muy dépasser donc il faut que ñu comprendre loolu que nit ñi aussi nangoo xam ni kenn moom la ñuy xaar décision wam mooy le président Ousmane Sonko mooy direction wam mais ñu nangulante itam ci diggante bi c'est normal que nga gis euh, ku nga xam ne da nga porter le projet nga xam ne Bassirou Diomaye moom mooy Ousmane Sonko parce que ñun ñii Bassirou Diomaye mais Ousmane sunku moo ñu wax dem leen ngeen wutali ko parrainage ñu dem wutali ko parrainage du dëgg donc loolu loolu du débat bi loolu du débat bi mais il faut surtout pas ñu am discussion ci sunu ay diggante parce que loolu dafay diviser en fait. Mhm. il y a mhm. même pas trois jours. dafa am benn mu dem seeti ci Bassirou Diomaye ba mu fa demee Bassirou na ko sama candidature dama bëgg ngeen teg ko ci suuf. ndeysaan. waxal leen wax ñoom Idi ñoom Gisaa Dieng ñëpp wax leen nañ porté ki nga xamante ne mooy candidature ki nga xamante ne mooy président Ousmane Sonko. Mhm. pour wan la ni ñoom ñaar nu ñu jaxasoo wee. Mhm. waaw xoolal soo dem président Ousmane Sonko mu ngi naan dem leen ngeen pare euh, Bassirou. door na ci Bassirou mu ne leen dem leen ngeen euh, pare euh, ki nga xamante ne mooy. Euh, kii ñu koy waxatee euh, Ousmane euh, waa Ousmane Sonko. Hmm. pour wala ñoom xam nañu lu ñuy combat bi ñuy xeex. Hmm. parce que xam nañ ni ñoom combat bii nii ak bi bii nii c'est au-delà de la personne. c'est ça c'est ça loolu loolu mooy wax ji. Mm-hmm. problème bi xeex bi lu du question diw wala diw. déedéet déedéet du xeexu benn nit. Ah. voilà parce que projet bii nii bu mooy defar Sénégal. Mm-hmm. te ñun ñëpp ci loolu la xeex bu nga xamante ne ku nekk di nga sa bopp. Mm-hmm. voilà kon muy loolu métti na nag comme ni nga ko waxee. Euh, man depuis sànq ba ne maa ngi ci ay appel day taal parce que ñun ñëpp suñu sañoon Ousmane Sonko bi nga xamante ne depuis presque euh, dix ans mu ngi wala ñu ngi ànd ak moom. Mhm. amoon yéene def ko président. Mhm. mais ñu xam ne espoir boobu ñu ko. Mhm. parce que ni ñu ko yow di faral di waxee rek soit on gagne soit on gagne. bien sûr bien sûr mais ñi ñi am lu leen metti yépp aussi il faut qu'on accepte aussi leur douleur. il faut qu'on accepte ñu ñu extérioriser ko il faut aussi que c'est le moment aussi de montrer euh, de plus montrer pourquoi on avait choisi le président Ousmane Sonko c'est le moment aussi de montrer au monde sunu indignation parce que euh, si c'était que nous dans nous on peut on peut s'entendre mais le monde nous regarde Et dans, dans, notre, dans nos comportements, d'accord, on va rester debout. D'accord, on va continuer le combat. Parce qu'on est obligé. Parce qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de ce combat. Il faut qu'on le gagne. Mais d'accord, vous nous avez donné un coup de couteau. Comptez-nous. Comptez-nous. Pas parce que de nous éliminer sous nos candidats, mais parce que de nous utiliser justice, utiliser administration utiliser lu ñuy loi utiliser suñu réew ba def li nga xamante ne moom la ñu promettre oon léegi nag à nous nag à nous nag de tenir nos promesses nag c'est le moment ñun ñoo war a tenir suñu ay promesses parce que nag foofu la ñu toll yomb na torop ñu ne non non ok à chaque fois dañuy rebondir mais il fa il de tenir nos promesses tenir nos promesses. La première chose pour tenir nos promesses, c'est déjà d'aller chercher nos, nos, nos, mais c'est aussi de nous mobiliser. Nous and nekk benn dem de la victoire. Parce que Boudoulol, on aura trahi, on aura perdu. Sous nos candidatures, on aura trahi. Il faut qu'on tienne nos promesses. Parce que nak, li, and la mobilisation, khair am foule ak faida. Lolo momoy Voilà. man nag moom man nag moom je pense que j'ai le droit parce que comme man euh, je je suis pas de nous on n'est pas de Pastef on a un candidat qui s'appelle Ousmane euh, président Ousmane Sonko donc ñun tey mën nañu taxaw rek ci candidature am ba keroog euh, ba keroog moom mu ñuy teg ci beneen candidature <laughs> voilà voilà voilà merci beaucoup merci merci beaucoup merci merci Idi voilà un un grand patriote un brave gars donc euh, macha allah am na solo euh, waaw boofu ñi am sama numéro euh, mun nañu réagir parce que c'est fait pour ça hein c'est fait pour ça parce que c'est pas que pour man ma def monologue Voilà, Christian Gébet, il a raison. Il a dit, si vous dormez jusqu'à ce que Macky vole les élections, vous allez souffrir à vie. Ah oui. Ah oui. Voilà, donc il faut, il faut se réveiller. Voilà, il faut se réveiller. Vraiment, Fatoumane, c'est trop facile. C'est trop facile. maa taxaw décider ne diw du bokk def li ma war a def lépp dans un pays qui se dit on va faire ça comme li nga wax on va dire alhamdulilah dégg nga incha allah allo maaleykum salaam hmm? ban docteur balaa ma Boufane hmm? déedéet jëlaguma la en direct parce que foog ma xam yow la kan ba pare hmm. je vous connais pas c'est par rapport à quoi waaw waaw mm-hmm. affaire flyers ah non non non je suis pas au courant de ça bon comme man je suis responsable de mon live moo tax aussi comme xaw ma ci lan nga bëgg a wax mënuma la dugal ci suma live te xaw ma ci lan nga bëgg a mm-hmm. mais comme dëj la je me rappelle pas loolu moo Mm-hmm. waaw mm-hmm. mm-hmm. bon comme man c'est vraiment un live bien cadré c'est pour euh, dajale waat njaboot gi sur le focus je pense qu'on aura l'occasion de parler de jurisprudence et de droit une autre fois incha Merci beaucoup, merci. Mhm. Donc voilà, donc live bi c'est vraiment pour euh, qu'on partage nos sentiments ensemble, notre frustration, sunu colère, sunu détermination, yokkante doole, euh, joxante loxo euh, et puis rester debout ensemble. Donc ci sens boobu la quoi. Donc je veux pas qu'on aille Euh, qu'on ait des avis euh, divergentes euh, du dictature mais loolu képp moom mooy soxlay laaj bi mooy je pense que j'ai déjà tout dit wax naa lépp lu nga xam ni moom laa waroon na wax pour nit ñi comprendre voilà li am solo mooy ñun ñoo bokk fi ñu jëm tey am nañu lu ñu metti ci sunu bis bi ci combat yi du tax ñu bàyyi wax ni dañu am lu ñu metti wala euh, jël le coup encaissé ko ça ne veut pas dire que dañuy délaissé wu nañu ko comprendre ñu jël le coup mais nañu utiliser cette colère et cette euh, souffrance pour en fair une force voilà merci Touba Ndindi mu ne may seen yaay donc euh, comme j'ai vu que bu ma gisoon ñëpp baisser le moral tamit damay ñëw pour remonter leen le moral donc je vois que euh, machallah le moral est bon euh, le moral est très très bon et euh, je sais que c'est pas parce que vous n'avez pas de douleur loolu aussi dama bëgg nit ñi comprendre ko parce que am na ñu bëree bokk ñoo nu ñuy réagiré man euh, j'ai mal mais je suis debout comme vous donc euh, ñu bëree aussi bu ñu jàpp ne les gens sont passés à autre chose parce que les gens n'ont pas mal non non faut pas faut pas voir ça comme ça il faut voir que les gens ont besoin d'aller de l'avant on a besoin de gagner cette élection parce que bu ñu ko gañewulee du ñu mun a génnee suñu prisonniers yi ci kaso bi donc euh, euh, tey loolu moom mooy wax bi moo waral waxtaan bi euh, jaajëfal leen encore ci dépassement bi mais juste attirer seen attention lu ñuy mën a publier nañu jox solennité le moment parce que nous acceptons nous restons debout nous avançons dans le combat mais nous ne sommes pas heureux nous ne sommes pas heureux voilà donc euh, am na benn nuance bu ndaw bu ñu war a def nous continuons le combat nous allons le gagner nous allons aller avant à, à l'avant mais nag nous y allons avec de la rage avec de la colère pas forcément en festoyant donc loolu mooy focus bi mooy rester sérieux rester concentré parce que nag ils viennent encore une fois de nous redéclarer encore une nouvelle guerre c'est une nouvelle guerre c'est une nouvelle guerre un défi à relever ils veulent nous dire que bu dul Ousmane mënul nekk keneen ñun ñoo leen di woon nax ngeen seen bopp bu dul le président Ousmane Sonko le projet la bu dul président Ousmane Sonko tam volonté président Ousmane Sonko mooy jàll bu dul président Ousmane Sonko tam bëgg-bëggam moom mooy jàll bu dul président ousman Sonko tam projet bi moom mooy dem c'est un nouveau défi c'est un nouveau défi qui demande nouvelle attitude nouveau nouvelle mentalité qui demande persévérance donc ne serait-ce que pour les prisonniers Abdoulaye Cissé ne serait-ce que pour les prisonniers il faut qu'on reste debout il faut qu'on aille jusqu'au bout parce qu'on ne peut pas les abandonner parce que si on les abandonne on aura trahi on aura trahi kon nag taxaw leen ci loolu ñu fanaanoo ko ñu ànd moom ñu yem ci loolu ñu continuer focus mais nag bu ñu fàtte conseil constitutionnel dafa bokk suñu liste administration bokk suñu liste li ñu fi def yëpp nañ ko rëdd écrivez la ce qui s'est passé aujourd'hui écrivez-le noir sur blanc sur vos murs pour que ni n'ignore ko aujourd'hui am na ay juges yi nga xam ne ñoom lañu yaakaar pour ñu joxe suba résultat bi sénégalais yi ñu doon xaar ci ñoom defuñu loolu li Sénégalais donc xaar ci defuñu loolu donc euh, je pense que mën naa ko yemale foofu parce que je j'imagine que beaucoup de gens doivent faire euh, des je pense que sama sama propos leer na waaye a Diatta waaye merci j'aime bien cette expression ils ont fait le boulot Adrien Diatta mu ont fait le boulot pour euh, et nous on fera le boulot pour Sonko par l'élection de Diomaye j'aime bien ce genre de raisonnement voilà voilà Inch'Allah le peuple arrivera au bout il faut que le peuple se réveille Mm. <laughs> Oh, Diallo, non, même pas. Mm-hmm. mon pays. nee na yaa ma ëpp mental moo tax je t'appelle bu sobaale jigéen bu mun góor il faut du mental il faut du mental il faut rester debout il faut rester debout il faut aller jusqu'au bout bu leen bàyyi dara faut pas accepter ça faut accepter d'avoir mal, d'être en colère, d'être frustré, mais il ne faut pas être couché. Ahmed Sall, merci beaucoup. ne <laughs> pas être couché. Ah oui, mon pro, oui, Macky mon... Hmm? C'est un nouveau défi. Restons mobilisés pour libérer euh, notre président et nos, et On repart au front. Merci, Issa Diémé. On repart au front. On ne festoie pas. On ne festoie pas. On n'est pas en train de jubiler, de festoyer, c'est la fête. Non, non, non. On repart au front. On repart au front. Loolu mooy état d'esprit bi. On repart au front. Il faut ñu jàpp loolu. bu ñu nekkee jàpp ni c'est bon rek xam nga ñun dañu gaaw ci loolu. Hmm? ñu gaaw ci loolu. ñu gaaw ci festuwaaye tasaaroo dugg fii génn fii ñoom mayaa Ndiaye ñëw ñoom Ababacar ngi ñëw ku nekk ñëw dugg ci dara après <laughs> ñu ñu kii j'aime bien le incassable mais sa euh, ça que de commencer Fatoumata Bintou Rassoul Diouf il a elle a raison ça vient que de commencer c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir la combativité d'accord Merci Clémence, merci. Fier de vous aussi. Hmm. En tout cas, <laughs> après 2024 moom, après le 25 février. Aïe, aïe, aïe. là il beaucoup de choses à refaire. Hein? Par la force. Voilà. nañ focus ci suñu mission rek dégg ngeen bañ a dugg ci benn euphorie voilà Tout ce qui nous blesse nous renforce. Tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Tout ce qui ne blesse pas nous rend plus fort. Donc nous devons rester mobilisés. Hum? D'accord Et puis rester à l'écoute aussi. Pour ceux qui sont patriotes, restez à l'écoute des directives de votre parti. Hmm? On a beau dissoudre Pastef, on ne peut pas dissoudre les gens de Pastef, ni l'esprit de Pastef, ni, euh, ni, euh, ni cette force de Pastef. Donc écoutez, les gens habilités à parler. Voilà, nous on donne nos avis pour essayer de garder les gens euh, dans le focus, mais les directives et les directions c'est les gens du parti ñoom ñoo leen koy jox incha allah dinañ ci génne communiqué dinañ ci wax d'accord et puis euh, ngeen déglu leen parce que nag foofu lañ tollu de <laughs> benn benn fu ñu def benn say di déglu rek directive yi mu nekk benn directive ñu bañ a dugg ci leneen bu ñu commencé di xëccoo suñu biir buñ ko def dégg ngeen buñ ko def ñu commencé di xëccoo suñu biir voilà incha allah On est capable. On va y arriver. Voilà. On est capable et on va y arriver. va y parce que li ñu bëgg kenn waruñu ko xañ kenn waruñu ko tere te nag comme li ma waxoon ci Pape Alé rek da ngeen ne duñu duñu dugg ci pale bii dinañ jaar ci fenêtre bii ubbi bunt bii dugg ci pale bii loolu nit mënu ko dindi. Inch'Allah, euh, j'aime la justice. Je serai toujours là. Ça, c'est une promesse que je fais au peuple, je fais au Sénégal, que j'ai fait à notre candidat, le président Ousmane Sonko, mais que je vous fais. Que je serai toujours là. Voilà, je serai toujours là. Je serai toujours là, à ses côtés. Ça, c'est une promesse que je lui ai faite. Je serai toujours à ses côtés, derrière lui. Notre mouvement sera à ses côtés. Nous serons tous à ses côtés. Et nous irons jusqu'au bout et nous gagnerons. Donc, euh, écoutons-le, suivons les directives. Euh, vous avez des gens responsables dans le parti. nga xam ni euh, lu leen seen président wax rek loolu la ñuy def donc ñu dégloo rek ok ñu bañ a xëccoo suñu biir bu ñu xëccoo dara dara dara bu ñu commencé les divisions kii naan lii kii naan lii ñuy xëccoo jamais euh, nañu dégloo yomb na mettiwul te buñ ko dégloo sax ngeen au lieu ñuy poster ay publication mais ñu poster ñun ñëpp Sénégalais yi bëgg Ousmane Sonko yëpp te bëgg ko voter nañu poster ou président Ousmane Sonko yow la ñuy déglu yow lañuy déglu foo joxoñ foofu la loolu moo koy gën a may doole te loolu mooy tax mooy tax waa boor bee di gën a ñàkk nelaw kon dinañ xam ne laa ilaaha illallah kon kii moom kese la nit ñi di déglu il faut loolu ñu won leen ko d'accord il faut loolu ñu won leen ko Pape Mbaye Seck aujourd'hui ouais je suis un peu j'encaisse demain peut-être que je reviendrai plus forte d'accord donc euh, merci tout le monde ah maa ngi jéggalu euh, je vais devoir couper parce que bëgguma la live bi gudd euh, <laughs> la campagne digitale a déjà démarré bon elle doit pas démarrer quand même elle doit attendre. elle doit attendre les directives ah fi ngeen may gis ni nag je peux peut-être être une grande leader mais je suis aussi une grande militante dama ku mën a déglu laa man hmm? <laughs> ku mën a déglu laa et puis ku nangu kilifteef laa tamit <laughs> d'accord donc euh, nañ taxaw mais nañ déglu tamit ah d'accord merci beaucoup Foundiata Chantaï, bienvenue, aux trois, bienvenue pour la campagne. Vous serez tous le, le bienvenu. <laughs> Inch'Allah, c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on a un raccourci, le manche. D'accord. Merci beaucoup. Ouais, ouais. Il faut montrer toute la photo. Ouais. Pas, euh, attendez, rec, d'accord Attendez, rek, tout ça, ça va se faire. <laughs> ça va te faire, d'accord hmm? D'accord. Anta Sarno, je ne suis pas abattue. Je suis toujours focus, mais je suis blessée, en colère. En colère que ces choses-là puissent se passer dans ce pays-là. Pourtant, les juges, les jeunes juges ont tellement été... Euh, ont tellement été euh, courageux en disant le droit. Et puis là, on est rattrapé par ay maguette. yoo xam ni mu ngi noonu quoi c'est trop facile mais c'est pas grave on va en faire une force hein? c'est quand même injuste c'est très injuste mais on va en faire une force on va rester debout on va continuer d'accord voilà donc euh, xaar leen rek waaw kay Yacine Diop boobu man boobu laa bëgg man boobu laa bëgg man boobu laa bëgg voilà man boobu laa bëgg Yacine boobu laa bëgg gis tey man boobu laa bëgg gis partout su ngeen deful boobu rek man damay fay sama Facebook duma ci duggaat hmm? d'accord Ousmane nuy naa la man boobu laa bëgg gis ñun Sonko la ñuy xaar Sonko la ñuy déglu Sonko yow la ñuy déglu président Ousmane Sonko yow lañuy ñuy déglu yow rek lañuy ñuy déglu yow lañuy xaar yow lañuy ñuy déglu d'accord daal su ma ko gisee damay damay xam ni yéen daal yéen a ngi focus waaw nekk vrai soldat taxaw di xaar des ordres soldat day xaar ordre nag <laughs> yéen nag soldat ngeen xamante ne du ngeen xaar ordre ah. donc euh, loolu rek laa bëgg gis restons mobilisés kenn du reculer ok ndigal rek la ñuy xaar am géey mbay géey waaw loolu rek laa bëgg a gis loolu daal laa bëgg a gis loolu laa bëgg gis ngeen tasaare ko d'accord loolu daal bu ngeen ko tasaaree rek amul benn problème <laughs> incha allah ma bonne décision va tomber hmm? yàggul dara mais acca rek